barakaatu kon mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax télévision MK muy télévision Muxaddamatul Xidma bi nekk ci jumaay Touba. tey nag ñu nekk ci bis boo am solo mooy bis boo xamante ni dañ koo jagleel consultation gratuite maanaam faj boo xamante ni dañuy jàppale membre yi jumaay Touba. membre yi nag suñ ko waxee ñi ngi tàmbalee ci imaam yi noddukat yi waa daaree kaamil ndax ku nekk xam na ne jumaa ji dafa bari ay mag yoo xam ne seen dund gépp dañ koo jeexal ci jumaa ji ci di taxawu jumaa ji ñi di ay imaam ñi di ay noddukat ñi di waa waa daaree kaamil di ñoo xamante ni guddeeg bëccëg ñu ngi ci jumaa ji di jàng alquranul karim eh, di saxal julli yi di taxawu jumaa ji ñooñu nag taxawu leen ci wàllu wér-gi-yaram day lu am solo ba tax daayira Muxaddamatul Xidma ak lëkkaloom ak euh, corps médical bi nga xamante ne ñoo nekk fii ci localité bi Touba notamment clinique Cheikh Abdoul Ahad Mbacké bi nga xam ne doctor Abdoul Ahad fay moo koy moo koy gérer ak mbooleem personnel médical bu baree baree bare boo xamante ne ñi ngi ci dëkk bi daan amal at mu jot consultation gratuite muy faj moo xamante ni dañuy taxawu magi jumaa jooju ak membre jumaa ji Euh, tey nag di gaaw fukki fan ak juróom-benn ci weeru octobre amul atum 2021 ci lañ ko amal ndax xam nañ ne at yi weesu ñaari at yi weesu yëpp xew-xew yi nga xamante ni moo xewoon ci àdduna bi te xew ci senegal muy euh, euh, feebar boobu di coronavirus moo taxoon ñu dakkal lu ni mel waaye nag gannaaw yàlla def na tawfiq ba ak dal am ci moo tax daayira Muxaddamatul Xidma nag reprendre nag action sociale boobu nga xam ne moom la doon def muy consultation gratuite boobu ñi ngi fi nag ak taxaw ak suñu kilifa Serigne Cheikh Mbacke moom Cheikh Abdoul Ati Latif ku ku ko wax sa xel dem ci Cheikh mun Mountakha mu ñëw teew fi nag teewal fi Cheikh mun Mountakha ndax nag jëf ju mel bu ñu koy def ci jumaa ji dafa mel ne euh, xalif général de Mouride lañ koy defal sëriñ bi tam yëg loolu ba tax mu bàyyi ko xel bu baax a baax Serigne Cheikh Abdoul Atif Serigne Cheikh Abdoul Latif teew fi nag ci kilifteefu ci ci kaddu Cheikh Mouhamadul Mountakha ñëwoon nag doon xool si liggéey bi ci suba ba léegi tàmbali nañ ko ñu baree bari mbooloo ba baree bari ñi ngi fi ñoo xamante ne ñi ngi leen di taxawu moo taxoon ñu bëgg nag waxtaan ak moom mu joxe mu joxe ay kaddoom ci bis bii nga xamante ni moom la daari Muxaddamatul Xidma di defal may fàttali ne consultation boobu nag mi ngi eh, nekk ci loxol commission sociale bi nga xamante ni moo nekk ci biir daayira Muxaddamatul Xidma ndax ku wax mbirum social ndax taxawu doomu aadama ci wàllu social la bokk ba tax na ministère de la santé et de l'action sociale mooy ñaari barab yi ñu lëkkale mbirum faj ak mbirum social moo tax commission sociale bi nekk ci daara Muxaddamatul Xidma sëñ Abdou sëñ Abdou Ahad bu sa maam as jiite ko ak mboolem ñi mu ko àndal ànd ak daayira Moukhaddamatoul Khidma bi yëpp nag tàmbaree ko ci bureau exécutif bi ba ci commission yi nga xamante ni ñoo ci aju ñëpp ku ci nekk la nga ca war a def ci wàlli taxawaay nga def ko ca moo xam organisation la moo xam finance moo xam coordination bi ñoom ñëpp ñu maase taxaw ci bis boobu ngir bis bi am réussite bu am maanaam fa alhamdu ci suba ba léegi bañ ko tàmbalee wax dëgg yàlla mbooloo mu baree bari ñëw nañ fi ci ay domaines yu bari ci wàllu santé ci wàllu ophtalmologie ci wàllu médecine ay généraliste ñi ngi fi ay ay cardiologue ñi ngi fi macha allah discipline yu baree bari yoo xamante ci wàllu santé ku am jafe-jafe ci wàllu wér-gu-yaram jàpp naa ne loolu dañ la ma taw kon Serigne Abdou mi nga xamante ni moo fi teew teew fi nag di kenn ci daari muxaddamatul xidma waaye itam nag teew fi nag ci teewaayil teewal fi Cheikh Mouhamadul Mountakha kon lu ñu bu ñu def lu mel nii loo xam ne dafa concerné jumaay Touba bu fi teewee faaw ñu jox ko kàddu mu wax ci turu Cheikh Mouhamadul Mountakha nan la gisee bis bi sëñ bi sëñ Cheikh Abdou Latif salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu maanaam gis inu sant yàlla gis inu rafet rek ndax ñëw nañ fi ni nga ko waxee ci ñaari tànk ñëw nañ fi ndax lépp lu ñuy def tudde ko sëriñ Touba moom ko Sëñ Tuubaa moo war Sëñ Muntaxaa moo war a sàmm loolu moo ko war a saytu te noonu itam dafa ñuy yónni ñu di ko saytul fu mu waroon mën a dem te mënu faa dem waaye si biir loolu nag mu boole lëkkalewaat ma ak waa Muxaddamatul Xidma ñu bokk liggéey kon bu Muxaddamatul Xidma organisé lu toll nii wax yëgal ma ko dinaa ñëw taxawal fi sëñ bi ba mën a leeral sëñ bi ni mu demee dëgg-dëgg waaye mën a xam mbir mu sant yàlla itam rafetlu ko lool ndax lii day lu am solo loo xam ne ñëpp dañ ko war a def ndax nit ki balaa man def dara daa wér ba noppi li tax nit ñi wér nag surtout mag ñi surtout mag ñi mu fekk léegi ñuy ba jàngkati kaamil yi bu bu kati sëñ bi mag ñoo xam màggat nañ te jeex takk sëriñ bi rek la ñu yëngul kon di leen dimbale bañ mën a yëngul sëñ bi tuyaaba ju rëy rëy ndax mi ngi mel ne koy xeex nga jox ko ngànnaay kon loolu bu ñu bu xaat ma ma amee xalaat bi defee ko itam réussir nii man sama bopp bi faju naa fi man na lu ñu fa seetal kon loolu kon ku fi ñëw ku nekk te daanaka kenn wératul ndax àdduna toll foofu ndax yéen itam toll noonu xame naa fi it lu ma xamutoon lu ma xam ci clinique bi impact bi mu am ak bare na fi doon fa ma doon yore orienté ay nit ci dëkk bi ci ay clinique bii gën a jege te bii ëpp ay matuwaay loolu njariñ la te moo fi ñëwuloon du ma ko xam xam naa ko ëllëg mën na maa yebal ay nit fu gënoon a sori te li fi am foofu du ko am bu ñu xasee xam nag li fi am dañ ci sawar kon daal sant lépp bi ñu ko tënk ak sant yàlla rek la mooy mu xam xet ma am nañ xalaat bu rafet jëfe nañ ko réussir na ndax kenn képp fajoo fi wér rek tiyaabam képp nga mënum doon te mbooloom jumaa ji ñëpp gis naa leen fi ak ñeneen ñu nekkul ci jumaa ji sax ay mag ñoo xam ne ñu ngi ci dëkk bi di mag magi sëriñ bi ñu aajoo dimbale ñu dimbale leen fi tax saytu leen loolu rëy la lu rafet la luñ bëggee la danañ jot lépp sëriñ bi tey ñaan ci barkeem nag ci moroom dafa leen yiw bi dafa leen ci ndam dafa leen ndam ci liggéey yi seen ngir sëriñ bi yëpp sëriñ bi nangul ñu lépp jërëjëf waaye kay jërëjëf kon mbokk yi loolu mooy kàddu yi nga xam ne Serigne Cheikh Abdou Latif moo ko doon yëkkati ci turu Cheikh Mouhamadul Mountakha waaye ci kóllëre gi nga xam ne seq na ko ni ak daayira Muxaddamatul Xidma kon jërë ngeen jëf ba ci kanam incha allahu taala